Barthélemy Dias bi Cour suprême gàntal démb ca la xëy l'info ne na ko dëggal àtte ban ko njëkkoon àtte te booba lépp journal kenn ci avocat yi a def ci Barthélemy Dias ne moo faat ndax seede ya ak la ñu gis ca bërëb ba yépp wane na ni kenn faatul Ndiaga ku dul Barthélemy Dias mi ca lii quotidien Barthélemy Dias ne ak lu ngeen mën a wax mbaalu yoon mën a dogal chaque moom duma ko mës a signal njabootug nervi booba di Ndiaga Barthélemy Dias yéeni kaay baa ngay fàttali ni yoon daan na ko ñaar fukki million ak juróom yu war a jox njabootu Ndiaga Diouf nib ndàmpaay ba lànk na ba tëdd ca ko fay ñàkk mandat député bi nag Barthélemy nee u député lay dundee Dakar Presse di joyante ni ñaar fukki million lu mu war a jox njabootu Ndiaga Diouf journal bi ne Barth croise les doigts maanaam ma ngay dajalay loxoom toog di xaar ndax mandat député daane ci loxol ministre de la justice di Aïssata Tall Sall le regard ne li tax mandat député ne ci loxol Aïssata Tall mooy article 51 chapitre bu règlement intérieur assemblée nationale dafa ni député bu nu daan condamnation définitive maanaam loo xam ne amul lenn luñ cay àtteeti dañu lay seppi ci liste député yi ci assemblée nationale ci càkkuteefu ministre de la justice kon Aïssata Tall Sall mooy ki mën a sàkku ñu génne Barthélémy Dias ci assemblée nationale buñ sukkandikoo ci biléb yénekaay bi gis ne Barth nag laal nanu ko waaye taxul mu diig ndax mi ngi taxaw ba tey waaye mbiram

am nam ko defee woon ak Khalifa Sall journal bi di ca indi ay leeralu Mbaye Cissé xelam ndax meerib ndakaaru bi maay ki fiy toog baxte ne bu ñu catu ndax danoo am rendez-vous bu njël ak taarix te ñépp danañu xam ne ndaanaan dëgg moo ne ci bopp meerib ndakaaru meerib ndakaaru ba woon Khalifa Sall mel ni ku waaru ci xët gu njëkk Walf Quotidien yéeni kaay bi ne la ko jaaxal mooy li Cour suprême gàntal pourvoi en cassation Barthélémy Dias ci mbiram Ndiaga Diouf tax mu mën a ñàkk poste député am ca assemblée nationale fii ak ñuy àgg ca loola l'observateur ma ba ñeel mbiram Ndella Madior Diouf yéene kaay bi ne a ngay joxoñ responsabilité état ci jee yi am ci bërëb yanuy defi xale yi libération ne médecin ya kay joxe nañu seen rapport ñaari xale ya faatu yéenekaay bi ne la leen faat mooy ñàkk lekk dénutrition journal bi wax itam leneen lu doy waar lu fay xew mooy ndeela mi da doon réewle ca bërëb ba maanaam ay jigéen dañ fa doon ñëw gu jaarut yoon te jubluwaay ba du woon lenn lu dul jël xale yooya jigéen ja bëggoon jël doomam jam bàyyi woon ca ndeela maajoor juuf journal bi ne ndeela juróomi million la ko doon laaj kenn ka doon liggéey ca ndeela lam wax takk der ya mooy ndeela business la jàppe woon mbir mi la mu doon jot ci xaalis kenn mënutoon xam num toll te ñu bari ca borom daraja yooye doon doon joxe xaalis danoo jàppoon ne danoo am ay turandoo ca gone yooya ndeel a téye na mu koy waxee Les ne lii lépp nag moo tax takk der yi téewati nanu ko ba talaata garde à vue wam dañu ko yokk ba boobale bés soog koo wanaleeg procureur vox populi it yëgal ñu garde à vue Ndella Madior Diouf jooja ñu tàllal ba talaata mu soog a procureur lan koy toppe bokk na ci homicide involontaire waaye itam ubbi bërëb bu ñuy téewi xale te jaaduwut bëgg a ca yoon Maymuna Sisoko xuma it waxati loola ca la tribune jël cëslaay mbiram Ndella Madior Diouf gi ne képp ku bëgg a ubbeeti crèche mbaa pouponnière daa wax lu set doo def ca 24 heures Alioune Tine naan Macky Sall li mu a def mooy libéré Ousmane Sonko bàyyi njiital Pastef te def ko cadeau Noël ci askan wu Sénégal ndax Alioune ne tey ñépp daanaka liñ bëgg mooy gis Ousmane Sonko moom boppam mën a bokk ci élection yi askan wi mën a tànn ka a ngi wéy di teg loxo ay jege ñaaleem ndax libération ma nga nuy yëgal ne gannaaw post facebook bu mu def Abdou Talla Camara bu Pastef section de recherche teg na ko loxo ñeneen ñuñ teg loxo mooy ñaari pompis yi njort ne ñoo faat gérant station bi di Bara Cissé ca Touba yéene kaay bi ne enquête ba joxoñut ñenn ñu dut ñoom tax ñu fanaan biig seen guddi gu njëkk ca kaso ñi ci kaso bi te atteegul leen ba daan leen ada ca las ma ngay sàkku ñu defal leen ay bureau de vote ci élection présidentielle bi ngir sàmm seen àq ak seen yelleef rawatina ak sañ gi leen yoon may te mooy wote pétrole ak gaz bu sénégal ñoom ña ngay wéy di wootal gaañi FPSO vox populi ñi ngi koy xaar ci ndoxi sénégal février ñeel projet sangomar yéene bi di la soley dëggal ko ne exploitation pétrole projet sangomar moo tax FPSO tegu na ci yoon bi wutal si sénégal waaye sénégal googa doomam yu bari des nañ ci ndox mi le quotidien xëy def xayma ne luy tolloo juróom-ñaari junni nit faatu nanu ci at mi ay gaal ak ñenu yaboon it réer mër ci ndox a nomination ba juróom-ñetti fan weeru janvier bi ñu dëkmal fi la nuy yem ci bésub tay ji ñaar fukki fan ñett weeru décembre ñu ngi leen di ñaanal kenn dal ak jàmm AGT News